ñu bari ñun ñuy woo ñu bari ñu bari parti société civile ak les salles suñu militant sympathisant ba pare waa ku ñuy wote ma leen a xam waaye keroog daal dañuy ànd gouvernement bi ma leen a xam <laughs> keroog daal dañuy ànd opposition radicale comme ni ko professeur waxee. ñu ngi expliqué opposition radicale ñu ko doon ñu ko tojee xëy na dañu amul a fukki ji la comme ko wax ñu a opposition radicale dañ ko def Sonko ak Bougane ak euh, ak Bamba Dièye ak Louga euh, Soie aussi ñu fay bon opposition bi nga xam ne ci opposition républicaine la moom lañ enfin pouvoir républicain moom lañ teg corps collègue le président depuis le Sénégal le président monsieur Macky Sall teg ci wetam Khalifa Sall teg

avec le B kii nu mu tuddee la France ah ñun nag ñun euh, waxu africain comme dañu sori ci wax ku nekk du ñu woo naan kan ngeen di voté kan la bëgg ñu ne nañ def assemblée euh, bu dee nii nga xam ne kàddu lañ koy jox rek jëluñu waa Casamance jëluñu waa Touba ñu ci gàllankoor xam nañ ko jëluñu waa Thiès te dañ leen nañ toog ba mag ba ñu woo ñu woo nag woo sommes partisans. nous force. Dans un mois, une chambre, tu subis de l'Union du sud du ministère partisans à Mali. Pour d'ici le 15 janvier, nous avons un résultat. Résultat, vous voyez, dans le lien 4, vous savez, régime bien les J'ai l'habitude de dire que le système politique, parce que nous n'avons pas un système politique, mais le régime politique.

kan woteel président Macky Sall wala ma ne suwaabu kan woteel côté Sonko du mais dañu seet suñu biir ki nga xam ne moom la parce que peuple échantillonnage la ñu si suñu biir la échantillonnage la suñu biir xëy na bu dee cinquante personnes bu dee cinq cent personnes en français yaa ngi dégg may wax en français bu ngeen bu fekkee cinquante wala cinq cent personnes la ñu def benn soxla ci biir ba boobu nag est-ce que gars yi yéen sama sama yi waaye li ngi dégg wax parce que dama wéetu ko dama wéetu bu ñu génnee ne vous opposition la ne am samay affaire yu mel ni am waaye bépp rek opposition bi or que du ma du ma opposition ci euh, pour le peuple li mu ñaari wax pour que dama tax wax li may wax yëpp sama wàll wëy la du ma nekk di xeexati naan damay def révolution non non non mais c'est comme dañ ma woo rek ci man laaj ci man laaj Italie partout message yaa fii waa terre colibataire fi naan terre fi ñu war a féete mën nañ ci assemblée générale ñu def ko loolu moo tax assemblée bi tey ñu loolu la xam nga très euh, man teg ci nag ah dinaa ne sax de waxtu africain bi di euh, euh, dañu tànn dix-neuf yamu ci élection dina def élection locale ba ci dégg ci deux mille dix-neuf la dañu bëgg ñun suñu biir ñu am bopp africain boo xam ne bi commune bii ci banlieue bi lu ñuy lu ñuy séddale am leen man am na ni dafa bi dañu bëgg loo xam ne lu ñuy séddale ci dëkk bi ñu bokk ci bu dee ay lu mën ko doon moo xam ne banlieue dinañ bopp africain lañ ko sóoraale sur le plan national euh, gouvernemental étatique ñuy séddale daal dinañ ne wattu africain dañ ko séddale dinañ ko séddale sur le plan africain dinañ wattu africain wala ko invité parce que nous sommes des ma li ñuy débat nii xëy na tegu débat bi parce que bu ñu yëkkee débat bi du trop parce que ak ñi ànd la loolu mooy xalaatu waxi africain loolu noonu bu ma juumee pàcca ma ngay ne si bu ma gisee lu mel yëpp damay juum waaye maa ngi gërëm yëpp di leen sant média yi am fàtte naa ko dama am lu ma fàtte Cheikh ku ma fàtte ku ma fàtte waaw yaa très bien très bien Yacine bravo Yacine vraiment li ma tax ñu ne ñoom dañ leen fonk ba te gars yi xamatuñu seen